nga xamante ni uh-huh. nee nga ni defal lu ñu réew mi dara uh-huh. bëgg a jóg ne dañuy dem est-ce que genre yooyu gis nga leen biir bennoo bokk yaakaar fees del ci bennoo bokk yaakaar ah. parce que nit mun nga nekk un milliardaire wala nga nekk un ministre de la république te te te doo représenté te amul lenn loo apporteel askan wi nee naa la bu ñu la falee un ministre de la république uh-huh. nga tente say vitrine yor cinquante garde corps di di dawal say oto yu bari te wàccoo ci askan wi waxtaan ak ñoom président xam nga nee naa ko wax naa ko sama benn discours dama ne gàcce mënul weesu bi président de la République recevoir trente euh, quatre cent et quelques maires. Mhm. quatre cent trente trois maires. Mhm. trente trente co président conseil département. même pas 72 heures ñu ne ko yow la yow la yaay sunu candidat même pas 72 heures président génn ne du ma nekk candidat loolu gàcce mënul weesu loolu ci biir Benno Bokk Yaakaar. après ñoom ñu koy saluer quoi. non parce que wa non loolu waruñu ko saluer ndax lu tax gàcce la. non ñu koy rafetlu le fait président ne dootul dem ñoom ñoo. en fait voilà voilà même pas leen dew ma ñu ñëwaat voilà parce que xam nga ñàkk pexe la. mais man tey su ma demee ci sama commune. Hmm. y' a 39 villages. 30 villages yëpp taxaw na ma candidat nga candidat nga mais war naa mën a am fitu pour dem. affronté ko bu fekkente ne njortu naa ne liggéey naa ci village yooyu lu tax ma war a dem nekk candidat. Hmm. mais président de la République xam na ne ñi mu fal. ay responsable tam ay ministre am ay DG am nekkaluñ fi askan wi seen bopp lañ fi nekkal il faut di la vérité. ñenn ñenn si ñoom non ñenn si ñoom. ku mel ni tey boo demee suñu région tey Abdoulaye Seydou Sow bi nga xam ne benn ministre ci raison de Kaffrine. maire de Kaffrine. Mhm. c'est-à-dire élection yi passé ni élection législative ñëpp a tiitoon. mais il a gagné presque soixante soixante cinq pour cent wala soixante dix pour cent moom rek moo ko am ci quatorze régions du Sénégal te benn ministre la ci région. Mm-hmm. parce que liggéey na ci askan wi wane na boppam lu tax askan wi. mën ko wóolu day communiquer aussi day communiquer communique beaucoup. voilà ba pare boo gisee euh, premier ministre bi mu fay dem keroog dem fa ci titre ministre des sports. mais accueil bi ñu ko accueillir da nga naan un président de la république. mais ça c'était politique aussi bon loolu la. mais politique la mais politique boobu pour nga am ko il faut que nga am loo tekki fa nga dëkk il faut que nga am loo leen ji. mais yaa kan am na candidat yoo xam ne biir Benno Bokk Yaakaar mais. déclaré ko yëpp askan wi la comme kan comme kan. bari na fi lu mel ni ñoom Diouf Sarr. Diouf Sarr oui. warul yëkkati loxo non warul yëkkati loxo parce que na dem leeral Covid bi ñu ko bi bi ñu koy toppee ba pare. ku mel ni tey Boun Abdallah lan la lan la lan la def si ci si si si politique ba tax tey ñu war ko mën a choisir. ak ñeneen ak ñeneen ak. Amadou Ba bi ngeen en grande pompe lan la def aussi. moom on peut dire autant ak moom ah. non Ba Amadou Ba nekkul politicien mais tam bu ñu koy demee ba di ko choisir nañ ko choisir ci yeneen critères yu mooy que ne am na accès ci population bi lu tax ñu war ko mën a choisir tey profil yi nga xam ne ñoo wër président de la mun naa ne bu si gën alingu yu bariwul. parce que am na lu mu représenté fa mu dëkk dem na élection demaat élection téye baasam saa à xeex même bu fekkente ne gagné ko sax si gagné bu bu bu ñëpp ne waaw mais bi mu koy gagné nekkul ci biir gouvernement. Hmm. te ku ñemewu la dem candidat sa gox ba nga dëkk waroo mën a dem. candidat présidentiel Abdallah da nga jàpp ni que moom yëkkati loxoom bi erreur la quoi. non erreur bu mag la parce que gis nga politique il faut que nga xam réalité askan wi nekk na nekk na directeur de campagne président de la République. deux mille deux mille deux mille deux mille dix-sept wër Sénégal mais dafa dese politique dese sociale gis nga réew bi fi ñu toll. duñ ko tayle duñ ko dénkaane duñ ko able. dañ koy dénk ko xamante ni xam na réalité sénégalais yi comme ni ma ko waxee euh, Cissé mu naan ma dama faral si la mais dama dem toog siyaare sëñ Abdou Karim Mbacke mu wax ci moom lu lu lu lu am solo ci taxawaay bu muy def si Touba. ma gis taxawaayam ci Sénégal partout li nga xamante ni euh, Ablaye Sylla def na ko kon man faraluma ko benn bokk yaakaar xaw ma ko sax suma ko gis ñun Ziguinchor xamuñu non Abdoulaye Sylla Ziguinchor xam nañ ko parce que dem naa dem naa côté Goudomp fekk fa fekk fa entreprise am di liggéey tali bi nekk entre Goudomp xaw ma euh, ban dëkk alors kooku taxawaayam ci Sénégal ak social am ci Sénégal sa à boo ko dénkee réew mi am na lu mën a apporter euh, réew mi ak ñeneen ak ñeneen mais am ñoo xamante ni dem lu wala alalu askan wi taxaw di laaj réew mi loolu yabaate mënu ko weesu ah yow kii ngay wax